ñeenteelu édition foire internationale bu Kaolack nag ubbi nañu ko ci àjjuma ji ñaar fukki fan ak juróom ci weerub janvier catum 2019 bi ñu nekk cérémonie nag ba doon jëmmal li nga xam ne moo tijjite googu li ki ko amal di nga xam ne moom moo di njiitu jëwriñ ñi nga xam ne moom moo jóge ci réewum Gambie di jëwriñ ji nga xam ne moo fa gàlloo lépp lu jëm ci wàllu mbay ma waaye itam jëwriñ ji nga xam ne moom moo gàlloo lépp lu jëm ci wàllum jënd ak njaay ci biir réew bu Sénégal ak mbooleem autorité yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee fii ci diwaan bu Kaolack ñi nga fi fësal seen Maalum Ndiaye tàmbal nañu xaat defar li nga xam ne moo di seen ay stand seenub lim daanaka jéggi na junni ci ay ñoo xam ne nii ñëw nañ fii ngir fas yéene fee fësal seenum njaay. tey ma dellusi sawar ci lool bi ma président ne Mohamed dama bëgg nga dem taxawal ma ci wetu sëriñ boobu encouragel ma ko ci li muy def ci Kaolack li tax ma sawar ci Kaolack dama naan bu Dakar nekkee le servo maanaam xel bu réewum Sénégal Kaolack mooy poumon bi. ci bile foire sax ñu ngi fii séentu lu toll ci fukki junni doomu aadama ak juróom yoo xam ne nii fas yéene nañu fee teg seenu tànk ngir ñëw visité li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu foire boobule yooyu la kaddu ki ko fësal mooy ki amal bile foire di Serigne Mboup. foire bi ren ñi ngi am nañ progression de plus de cinquante pour cent l' année passée on avait mille six cent exposants année bi am nañ plus de mille cent et donc je pense que visiteurs yi tamit danañ ko doubler parce que ñi ngi def ay campagne pour pousser nit ñi ñëw ndax qualité des exposants yi fi nekk ci ay qualité produit ci ay qualité innovation lépp a ngi fi. di wax ne lu am solo la ndax bëri lu boo xam ne entreprise Sénégal dinañ wane seen mën-mën. dinañ boole euh, ci li ñu xarañ ci wàllu liggéey ci wàllu defar mais également ci wàllu expertise bërëb la boo xam ne aussi day permettre investir pour mën waxtaan seen biir pour mën a tabax defaree entreprise. FICA di foire internationale bu Kaolack nag li nga xam ne moom mooy ay ambition li koy jëmmal mooy fexe ba dëgëral li nga xamante ni moom moo di diggante yi ci réew bu Sénégal ak yeneen réew yi nga xam ne moom moo wër réew mi di Sénégal ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum koom-koom rawatina naka la ñuy fexe ba valoriser li nga xam ne moom mooy meññeef yi nga xam ne dañu koy bàyyee ci biir réew mi loolu sax moom moo nekk thème bi nga xam ne ni jël nañu ko ren ngir jëmmale ko li nga xam ne moom mooy foire internationale bu kaw Kaolack. fexe ba produit yi nga xam ne moom la ñuy bay ñu transformer ko man koo consommer local ñaareel ba ñu travailler ci nan lañ mën a def pour la compétitivité des entreprises. ndax at bu nekk Afrique day dépensé xaalis bu bëree bëri bëri ci bitim réew di ko jëndee Amérique di ko jëndee Chine mbaa di ko jëndee ay Brésil ci marchandise yoo xam ne africain mën nañu ko seen biir. kon foire yi occasion la pour ñu wane suñu mën-mën wane ci lan lañ mën a euh, jaay jënd également fii ci Afrique. invité d'honneur bu ñeenteelu édition bu FICCA bu Kaolack ñu ngi ko jagleel réewum Gambie ngir tax gi nga xam ne ni diggante Sénégal ak Gambie tax na ko waaye itam échange bi nga xam ne am na ci diggante ñaari réew yi ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum jënd jaay. boole ñaari réew yi boole ñaari réew ci ëpp doole su économie a a bu Kaolack door ñaar fukki fan ak juróom ci weerub janvier bii fas yéene laf ay buntam fukki fan ci weerub février bi ñu dëgmal ñu di ko amalee ci kër